ak jàmm ci xibaar yi li ci jot fës dañ koy doxee ak mbirum premier ministre Ousmane Sonko demoon na fële nga xam seen ne moo di ca Mali avant muy dem sa Mali sax demoon na fële nga xam si moo di ca Kigali ki nga xam si moo di seen président bi nga xam moom doon tabaat mu doon njiitum réew ma moom mi nga xam si nag moom moo di Ousmane Sonko demoon fa. ci quatrième mandat bi nga xam si nekk njiitum réew bu Kigali am na fa moom it premier ministre ba mu fa jugee nag si la nag dem fi nga xamante ne si la nag moom moo di ca Mali seeti seen président bi muy Assimi Goïta te seen premier ministre bi nag daat ko fay dal ci noonu rek ci li nga xam moo di centre bu mag bi nga xamante ne si nakk daat ko fay dalal lu baax. nag euh, nag di ko sargal jox ko fa nag li nga xam si nag moo di akub kado euh, moom mi nga xamante ne si moo di centre euh, Mali boobu noonu ci Ousmane Sonko ba tax na rek li nga xam moo di jour yi ñu ci bëri nag nag dañuy critiquer Ousmane Sonko nag loo xamante ne si nag vraiment ay reetaan sax daf lay jàpp ndax moom mi nga xam moo di Ousmane Sonko gannaaw ba mu demee fa xam moo di ca Mali ak kii yooyu ñi xam moo di journaux yi rek dañ naan fa demee rek. gën ko ñàkkal kersa euh, kenn rek euh, li nga xamante ne si moo di fulaalu ko ci euh, li nga xamante ne si nag moom la doon def moom mi nga xam moom moo di Ousmane Sonko di leen jaajëfal baax te di leen wax ngeen wéy di abonné di j'aime di partage